di nuyu mbooloo mi nga xam ne ñoo jàkkaarloo ñun di leen sant di leen gërëm ci seen taxawaay di ko rafetlu di leen jox seen wàccuwaay euh, dañ bëgg a ñëw ci ay slide yu gàtt dafa leen benn présentation parce que bu ñu leen wooyee ci mbiru télévision am na ñoo xam ne ci départ bi ba fi ñu toll nii am na information yoo xam ne amuñu ko ci moo tax ñu jàppoon ne dina rafet lool bu ñëwee mbooloo mi toog ñu wax leen balaa ñuy lancer télé bi nga xam ne ci loolu lañ leen woo tey jii yan jéego lañ ci dox moo tax ñu bëggoon leen def benn présentation bu ndaw rek ci lu gàtt tuuti. nii seetlu bu ñëpp seetlu woon ne ci paysage médiatique Sénégal bii gis nañ ne Hadara Ibrahima ya amul télévision boo xam ne moo ko moomal boppam ñu dee wax télé nag mooy tele boo xam ne dafay def diffusion bokkul ak tele internet wala yu mel noonu mais télé dëggantaan lañ wax gis nañ ne suñ pays bi da koo manqué. ci biir loolu nag euh, groupement Jamiyatou Ansarou bu groupement Dakar waxtaan loolu na ci ak suñuy kilifa yi nga xam ne ñoo fi nekkoon ci jamonoy Papa Cheikh yàlla yàlla yokk leeram ba ci Cheikh Mouhamadul Mahi Cheikh Ibrahim Niass ñu waxaat ak moom ci projet bi mu ñaanti jox si ndigal ba pare jàppal lañu ci ci fépp fu ñu si toll foo xam ne pour projet bi mën a yem ci biir loolu nag li nga xam ne tey boo bëggee télé si ngay jaar ci lañ jaar bind ay lettres yoo xam ne bañ njëkkoon bind Oustaz Babacar Niang moo ko bind nga xalifa bi ñëwee tam soppiwu ci dara loolu moom ci lañ tàmbalee continuer di wut pour fréquence bi bon li si topp mooy dañ wax ne promoteur projet bi promoteur bi moom xalifa bi la ndaxte bàyyi lañuy ñuy liggéeyal te moom moo toog toogaayu bàyyi groupement Dakar nag ñoom lañ santoon ñu doon dem ak ñëw bu aajoo yóbbu lettre ñoo koy yóbbu bu aajoo gisee autorité ñun ñooy dem bu aajoo dem rendre compte sëriñ bi ci liggéey fu mu toll ak jéego ci def groupement Dakar ñoo ko doon def ci jiitalu président Barham Seck ak beneen équipe bi nga xam ne ñoom la àndal am na ci ay journalistes am na ci ñoo xam ne ci tele lañ liggéeyoon am ñoo xam ne ci ay euh, journal euh, presse écrite lañ liggéey am na si ñoo xam ne ay financier la ñii ay comptable lañ ñooñu ñoo àndoon ak moom di dox ci projet bi euh, pour nag exploité télé bi daf doon laaj ñu créer entreprise bi noo xam ne moom mooy porter projet télé boobu parce que télé bi mun loo ko créer ci neen dafay am fu muy cëslaan boo xam ne ci lay wéeru moo xam ne li ñuy wax entreprise la boo xam ne day nekk su laa forme d'une société télé nag ku koy wax mënoo xëy xëy rek sa sañ sañu bopp wala sa coobare nga dem wut sa matériel taal déedéet bu demee noonu télé dañ ko encadré bu ñu wax encadré mooy que ni dañ koo yoonal dafa am ay tëralin yoo xam ne gouvernement yi daf koo teg nga xam ne képp koo xam ne da war a taal télé boo demee ba nga xam ne autorisé lañ pour nga am ko dafa am ay loi ak ay règlement yoo xam ne da nga ko war a respecté loolu nag ci lañ leen bëggoon indi indil ñu wax mbooloo mi ne tey jii loi bi ci njëkk mooy loi bi nga xam ne moo créé conseil national de régulation de de l'audiovisuel moom la ñu wax CNRA te Babacar Gaye jiite ko donc kuréel boobu moom mooy saytu lépp loo xam ne moo nekk tele ci Sénégal ndax yoon bi ko tegal ak charte yi ñu ko tegal ndax télé boobu mu koy respecté wala respecté wu ko loolu mooy liggéeyu CNRA beneen bi mooy loi bi nga xam ne dafa jëm ci droit d'auteur et les droits voisins ñépp xam nañ ne télé bu commencé tàkk am na ci wàllu woo xam ne ci ay animation la nekk soit dañuy teg musique wala ñuy teg ay sikar mais dañuy teg loo xam ne am na koo xam ne moom moo ko xalaat génnee ko ñu koy siiwal donc télé bi bu koy utiliser dafa war a wàccoog loi boobu nga xam ne 2008 lañ ko créé pour mu respecter li ñuy wax droit d'auteur beneen loi bi mooy loi portant sur la protection des données à caractère personnel ñëpp xam nañ ne tey dañoo nekk ci jamono bu tërëb yi nga xam ne nit ki li nga xam ne moomal na ko boppam mooy li ñuy wax les données personnelles sa tur ci la bokk sa sant ci la bokk fi nga juddoo sa numéro carte ak li nga xam ne yow sa jëmmi bopp la concerné bëgg nañ bépp télé boo xam ne tàkk na mu sàmmante loi boobu nga xam ne dafa wax ne. données personnelles li aju ci nit ki dañ ko war a respecter beneen loi bi si topp mooy loi 2017 portant code de la presse boobu loi dafa am importance parce que euh, boo créé groupe de presse télévision ci la bokk am na yoo xam ne dañu am télé am rajo am journal code de la presse boobu nag mooy tënk taxawaay képp koo xam ne yaa ngi liggéey ci presse yaa xam journaliste nga wala animateur nga wala yaay directeur télé bi wala directeur rajo bi dañ lay tegal loi boo xam ne na yow nii ñi nga war a taxawee lii nga mooy sa liggéey da ko war a teg ci professionnalisme ak déontologie donc loolu mooy loi bi nga xam ne code bi nga xam ne mooy saytu ñi nga xam ne dañuy liggéey ci biir organe de presse yi journaliste bi ban diplôme la war a am wala ñaata année la war a liggéey yooyu yëpp dañ ko tëgg ci code de la presse kon code de la presse bi dafay baax képp koo xam ne tey da nga taxaw pour taxawal groupe de presse nga xam ne loi yii nii da cee war a tënku du ndokk ne dangay ñëw taal sa télé ngay wax lu la neex wala ngay siiwal lu la neex parce que dañoo war a sàmm lenn mooy jàmm ci réew bi ak ordre institution yi ak kilifa yi ak sàmm xale yi nga xam ne xamuñu lu bëri. donc slide bii nii ñu ñëw moom la tuddee la mise en œuvre du projet parce que ginnaaw bi xalaat bi ñëwee. Euh, balaa ngay am autorisation bi nga xam ne moom la la CNRA bi jox dafa am lu mu lay laaj bi ci njëkk mooy dañ lay wax ne da ngay créer société boo xam ne société boobu mooy doxal télé bi wala mooy doxal organe de presse bi ci biir loolu créer ñuy créer Medina Baye Group SA ma fàttali ne bépp jéego boo xam ne dox nañ ko ci projet bi fu ñu ci toll dañuy dem rendre compte sëriñ bi ba tur bii sax. biñ ko proposé ay tur moom moo tànn turu na Baye groupe SAS SAS bu ñu ko wax mooy société par action simplifiée ci xeetu société loo xam ne la maanaam création bi ak doxalin bi dafa am yombal ak liberté boo xam ne ñu koy créer moom la ñuy am donc société boobu am na registre de commerce mooy deux vingt SMDK 2022 B 28 442 ak NINEA donc loolu loolu mooy carte d'identité société bi ginnaaw loolu dañ lay wax ne la da ngay ubbi compte bancaire compte bancaire boobu ubbi nañ ko ci banque islamique agence bi nga xam ne boo nekk Lamine Gueye bu loolu weesoo troisième étape bi nga xam ne am na solo mooy ginnaaw boo déposé dossier yi ñi ko war a saytu dañ koy saytu mooy ARTP ak CNRA ci fii tamit ñu ngi sant yàlla bu baax ndaxte sëriñ bi fuñ ci toll def nañu ñaan ak ñaanal taxawu ba pare bu jaree woote. bu jaree dox ay jéego wala yónni nit def na ko ba nga xam ne le 30 septembre 2022 lañ dem siège u CNRA signé fa convention bi nga xam ne moom lañ jox euh, Medina Baye groupe pour mu ubbi télé bu tudd Medina Baye TV ñu jox ñu canal 30 donc loolu le 30 septembre 2022 euh, lañ ko signé bon slide bi dañ wax description et portée de la télé donc description bi mooy li nga xam ne moom lañ signé ci convention bi convention bi dañu ne euh, une télévision confessionnelle et commerciale donc bu ñu waxee confessionnelle mooy ne dafa laal ci diine comme ni ko Amadou Samb waxee sànq message yu suñu sëriñ Cheikh al Islam Cheikh Ibrahima Niass radiyallahu anhu donc ci diine la jëm commercial bu ko waxee mooy télé bi c'est une télévision commerciale maanaam. dafa war a wut xaalis am ay produits yoo xam ne da koy jaay su ko defee bu koy dugal ci xaalisam beneen bi si topp ci li nga xam ne télé bi loolu ci lay def mooy des thématiques religieuses dominantes parce que comme ko conventionnel lañ wax télé bi dana am programme yoo xam ne li ci ëpp ci diine lay naan dana am tamit ay émissions yoo xam ne à caractère social économique et politique donc dañoo nekk ci société bi wala jàllale ay xabaar yoo xam ne nit ñi dañ koy soxla te xabaar yooyu dafay laaj ci wàllu social moo xam sante la moo xam politique la moo xam économie maanaam koom-koom jënd ak jaay ak lu ci aaju loolu mooy li nga xam ne télé bi ci loolu lay liggéey. deuxième point yi mooy li ñu wax porté porté mooy suñu wax ne tele bi suñ ko taalee bu demee bay dox fan lay yem comme ni ma ko waxee njëlbeen télé bi dafay nekk télé boo xam ne comme télé yi nekk ci réew bi la bokk ci yeneen groupe de presse yi nga xam ne li ñuy doxalee loolu la ñuy donc télé bi dafay am lu ñuy wax portée nationale maanaam li ëpp territoire Sénégal yépp diffusion bi daf fay jàng beneen bi si dafay am une portée internationale parce que ku xam Baye xam ne taalibe bi ñu ci àddina bi mais bu dul tamit nit ñi dañuy soxla information yoo xam ne ñu ngi ci gox yu bëri yoo xam ne télé bi war nañoo fexe bu jot fi nga xam ne foofu la war a jot yi donc loolu mooy li nga xam ne mooy portée pour mu am nag mu mën a siiw télé bi bu tàkkee ba nga xam ne vraiment démarrage bi dem na dañuy dugg ci ay bouquet yoo xam ne mooy permettre nit ñi bu abonné foofu ñu mën a am tamit bouquet yi nag bëri na ay façon am na ay canal ay TV d'Orange ak yeneen bouquet yi nga xam ne suñ fa duggee déjà ñun li gën a jafe am nañu ko euh, te loolu ci instruction président la jógee mooy que ni dafa wax ne télé bi jox fréquence mais nañ ko dugal directement ci TNT donc ñun loolu mooy yombal bi nga xam ne moo gënoon lu jafe te am nañ ko. donc li des ci convention bu war a signé mooy ak waa TDS parce que TDS ñoom ñooy def diffusion yi nga xam ne lépp lu télé di jàll la waa TDS ñoo koy jàllale ndax ñoom ñoo am matériel boobu. donc day baax tamit ñu xamal nit ñi ne télé bi bu tàkkee euh, pour mu liggéey mën a régler ay charge am am foo xam ne foo la war a jëlee xaalis loolu nag convention bi nga xam ne dañ ko signé ak CNRA dañu ko limal am na ci loo xam ne. ay tool la tudd mooy comme lii ñi nga xam ne moom lañ ci lañ leen woo parce que loolu loi bi permettre nañ koo ñu woo ñi nga xam ne vraiment euh, seen loxo bu dañ ko dugal ci liggéeyal bàyyi ñu ñëw def ay don joxe seen joxo beneen bi si topp mooy publicité ku xam télé xam ne télé dafa war di jàllale ay publicité parce que loolu da koy permettre muy am ay recettes financières yoo xam ne ci lay fayee ay charges beneen bi mooy les parrainages parrainage mooy bu fekkee nit ki am na émission bu muy mu dem ci koo xam ne dafay wax ne kooku moom mooy pare na émission bi moom mën na nekk sax li ñu tuddee li gën a siiw mooy sponsor yi nga xam ne ay entreprise yu mag ñoo xam ne da ngay créer seen émission ñoom ñooy ñëw ba pare sponsorisé ko am loo xam ne dañ koy fay su ko defee ñun ñu jàllale seen produit beneen bi si topp mooy abonnement abonnement mooy par rapport ak bugg yi leen wax sànq nga xam ne bu ñu fa dugalee télé bi comme lu mel ne TNT boo jëndee décodeur da ngay fay bu fekkee ne da nga dugg TV Orange da ngay wala Canal da ngay fay loolu moom la wax abonnement te yaakaar nañ ne incha allahu rabbi bu ñu déroulé business plan bi ni ñu ko war a defee danay xam ne yooyu dana mën a dugal xaalis bu am solo ci liggéeyu télé bi. bon slide bi moom la ñu tuddee chronogramme chronogramme bi mooy tembe tembe fii ñu toll ci doxalinu télé bi lañ la ñuy njëkk a def mooy comme ni ko Amadou Samb waxee dañoo nekk si phase d' impulsion mooy que buñ jógee fii incha allahu rabbi ba am local installé matériel minimum bi nga xam ne mënul ñàkk boobaa dañuy nekk si phase test phase test nag comme ni ko xam xamee mooy essayage nga xam ne matériel bi ngay installé di tegaale muy daw nang nang ginnaaw phase test boobu dafa am li ñuy wax phase de mise en place phase de mise en place bi mooy fi nga xam ne dëggantaan télé bi lay nekk dafa laaj ay aménagement yoo xam ne ak installation technique électronique yoo xam ne fa lañ koy def ak équipement yi nga xam ne moom la télé bi war a liggéeyee ak personnel bi ak programme bi donc loolu mooy mise en place nga xam ne télé bi day démarrer. troisième phase bi mooy lancement bi nga xam ne nag dañuy gis télé bi tàkk na ñu ngi def ay journal ñu ngi def ay émission di def ay plateau donc loolu mooy li nga xam ne mooy troisième phase bi ma xam ne mooy nekk démarrage diffusion émission te lii nag Médina Baye TV. Euh, slide bu mujj bii rek dafa am solo. parce que ñi ma jiitu wax nañ ko surtout Amadou Samb mooy li ñuy wax les gages de transparence parce que tey bu fekkee dañ leen woo ne ku si nekk na nga partir nga indi sa ñaar dërëm indi sa 1000 francs indi sa 50 mille francs te dañ leen seedeel ne nit ñi wax dëgg yàlla bëgg nañ bàyyi parce que yàlla def na ne euh, code marchand Wave bi ñu yor ak Orange Money bi nit ñi dañuy dugal ba pare mais dañ leen wax wax yu tam daw yaram yoo xam ne am na ñoo xam ne dañu toll Guinée wala ñu nekk ci dëkk yu sori ne la ñun ñu Baay rek dañoo bëgg Baay lépp lu ñu woote si Baay rek même bu lee lu ñu am bu dee téeméer dañ koy dugal ñu ñuy barkeelu ngeen ñaanal ñu am ëpp loolu pour dugal ko donc loolu dafa am solo kooku nag doo xeeb li mu dugal il faut nga wan ko ne ko li ngay dugal fii muy dugg nii lay demee li ci njëkk mooy dinañ def en sorte que bépp xaalis boo xam ne dugg na moo xam ci compte bancaire bi wala mu jaar ci code Wave wala Orange Money dinañ def en sorte que nit yi su dugalee xaalisam dana ko am parce que déjà bu dee Orange Money la wala Wave boo dugalee di nga jot SMS bu waree ne yow sa xaalis dugg na fi war a dugg bu dee compte bancaire bi la relevé bi suñ ko tiré dinañ def en sorte que dinañ publier ñi nga xam ne soit dañoo versé foofu directement wala chèque lañ joxe. beneen bi stop mooy ñu def ay rapport périodique yoo xam ne day tax ñu ne nit ki xaalis bi ngeen dugaloon kat pour ñu lancer télé bi bi ñuy jënd caméra tel lii lañ ko jël facture baa ngi nii bi ñuy jënd benn registre wala benn dig boo xam ne cent franc lay jar facture baa ngi nii ci lañ ko def parce que loolu mooy réduction de compte nga xam ne nit ñi dinañ xam ne fii ñu dugal seen dërëm kat fa mu waroon dugg fa lañ ko dugal te niñ ko utiliser noonu lañ ko war a utiliser ñu ngi gërëm ñëpp seen déglu di lay wax asalaamaaleykum wa rahmatullah